الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قال في محكم تنزيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام ala almabuusi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina muhammadin almakin wa ala alihi wa saxaabatihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain wa radiyallahu taala an qudwatina al azim maam Cheikh Ibrahima Fall babil muridin wa baad mbokk jullit yi mbokki taalube yi mbokki Touba Pikine yéen waa Touba Pakku ci njiital sëñ jib fa jib juuf nu ngi nuyu mbokk yi mu àndal yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bii dëppoo fan wi njëkk ci weeru rajab ñu jot ndigal ci sëriñ Touba sëriñ Mouhamadul Muntaqa alxalifatul am li taifatil muridiya yàlla yàlla yàggal ko lool ci sunu kanam te dolli ko wér mu digal waa pàkk bi yépp ci saa su ñëwatee ñu def ko bisub cant ñaan yàlla sunu boroom mu defal nu tawféex ci gën a sax ci liggéey Sëriñ Tuuba nu ngi ñaan sunu boroom yàggal ko lool ci sunu kanam te dolli ko wér di nuyu kilifa yépp bàyyiwuñu kenn ndax fii di Touba Bàkku Làmbaay dañ fi am ay kóllëre lu jiitu ñu fiy ñëw ci bis bi ñuy màggal mu ngi nuyu ñëpp di ziyaare sëñ Jeng Kalsaan bu baax di nuyu sunu xarit bari sëñ Abdourahman Ndiaye di doomi sëriñ Mor Ndiaye Làmbaay ñu ngi koy siyaar bu baax di jot nuyoo bi ñu jox ci sunu xarit sunu soppe Maam Mbay Géey jàngkat mu jotal ko ay kàddu yi cant yu yëg la ni fi la waroon a teew waaye ñu fi teewee moom lañ fi teewal yàlla yàlla fay ñëpp yiw di sant bu baax jànkatu xasaa yi di fi jaar sunu rakk yi doon barkelu ak sunu doom ji mujje ñu ngi nuyu ñëpp di beral nuyoo sëñ Modou Faye Komaay nekk fii di sunu kóllëre ak ko mel ni sëñ Abdoul Ahad Ndiaye ak sëñ Abdoul Ahad Faye di sant sëñ Alioune ci taxawaay boobaak léegi mu ngi jokkook ñun rek ngir lépp jëm ci luy yéwénal bis bi yàlla yàlla fay ñépp yiw di leen sant bu baax di leen gërëm xam ngeen ni bi may ubbi aaya bi ma ubbee mooy bopp suratul isra yi yàlla di fàttali événement bu rëy kawtéef bu rëy lu xewoon ci weer wii mu dëppoog ñaar fukki fan yi ak juróom-ñaar ci la sunu boroom mi nga xam ni dara ittewu ko lompañul ci dara lu ko neex mu def ko ci coobareem rañaane woon jaamam bi di sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mi tax lépp am jële ko ci genn guddi ci màkkatal mukarrama yóbbu ko ca baytil maqdis te Jérusalem waajale ko foofee yéegal ko yéeg bu kenn mësta yéeg mu rañaan ci genn guddi dem ci boroomam mu jox ko ibaadaat yi bi ci gën a kawe di julli loolu mu ngi amoon ci weer wu tedd wii nga xam ne door na tey ngeen xam ne tey guddi tey gi rek lu ci waay man ci ay nawaafil sëñ bi bind na ci lu bari sunu borom jéggal la defal la aljana defal la tawfiix ndax weer weer di toll rajab rajabul fard lañ koy wax ndax dafa beru ci ñeenti weer yooyu nga xam ni ca démb lislaam nanguwul woon ku ci xeex wala nga tuur ci deret ngir wor ma ci ko yàlla jox jëf ju jooju nga xam ni moom la defal ndawam li di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba tey mooy kawtiif bi gën a jaaxal xalaatkat yi mooy yonent bi nan lay jógee màkka ci génn guddi dem fi baytil maqdis ak ni mu sore nga xam ni booba gëléem dina ci dem weer du at mu ni ci génn guddi gi dem naa ñëwaat ci guddi gi sunu borom doon koo yéegee nga xam ni bi mu waxee wax jooju bari na sax ñu tuddeewoon seen bopp jullit te am na lu yàqu ci seen pas-pas ndax jàpp ni mënta nekk te wax naa ni mbirum sunu borom cuune rek ak ku rëyul xalaat moo ciy weddi dara nit bu teegul lépp li gën a nekk danger ci moom mooy nga mëntaam su koy wax dof la koo xam ni teegoo lépp doo yàlla jaam rek nga. déegoo lépp xamoo lépp loo xam dalaa sut neel dama caa àggul loolu mooy maam te waaye mënta nekk dof rek a koy wax soo déggee Serigne Touba radiyallahu anhu ci téeréem bi jaaxal ñépp di masaalikul jinaan mu wax ca ni kalaamahum isa dëhaaka yaa balid fa qul kama qaala zaki abdul wadud kalaamal awliyaay lastu afhamu li anna nii ana ana wahum humoo mu ni wax nitu yàlla yi sunu borom da koy taxañ da koy nëbbu suñu waxatee loo xam ni dafa jéggi sa déggin yow mi nga xam ni yaay balit bi balit mooy ku ñe ñàkk xel ku yeewul mu ni bul weddi mukk di gaañu na wax la jëmm ju muus ku ñuy wax Abdul wax daan wax ni ah ñoom wàllu yi seen wax ñoom ñoom la man man laa ndax àgguma ci wilaaya xawma la ñuy wax ndegem wàllu yi rek mooy mën a wax loo xam ni danga ciy xalaat ay at doo ko dégg ak loo xereñ xereñ astama ki tax yàlla waajal wàllu yépp muy Seyduna Muhammad sëñ Ibrahima Diop al-Mashari radiyallahu anhu nga xam ni jàngkat yépp la jaaxal ci ni mu jekkoon lam dañu yaaram arab dafa woy ci genn xasidaam di tàgg Serigne Touba daf caa wax wax joo xam ni ca ngay xamee ni yàlla noppi na ci mbiram moo jiital ñi mu jiital ña jiitu jiitu nañu ña ca ginnaaw ña nga ca ginnaaw wa saabiquuna saabiquun ulaayka al muqarrabuun ñoo ne ñooy jiitu ba faw yàllaa leen tànn sëñ Ibrahima Diop dafa wax ni shahidtu bi anna allaha la rabba gayruhu wa anna aba zahrai minhu rasulu wa anna xadima almustafa faaqa baaduhu alayhi rida walxaq fiihi aqulu huwa almuzaka wal awliyaa kawaakibun madat sanaawu maa araaw ufoon lëhoo xadamun taxaloo alal xurri kulliha kullihi kullihi wa miqdaaruhu fawqal jamiici jaliilu fama lil qadimil barri min ahdi aadamin ilal yawmi fii kullil kiraami masiilu li tafdiilihi sarix bi tafdiilihi sarix wala tax sa munkiral fa lil munkiriina laa yaquumu daliilu sa Ibrahima Diop Masar moo wax loolu nee na sahitu maa ngi giñ maa ngi mu seere man sëñ Ibrahima Diop Masar sahitu bi anna allah ni yàlla sama borom laa rabba xayruhu amul benn boro bu dul moom yàlla moom rek ay borom. wa anna aba zahra minhu rasul maa ngi seere ni bàyyi Fatimatu bintu Zahra di yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndaw la lu yàlla yónni ñëw ci jàmm. wa anna xadimal Moustapha faaqa baadahu maa ngi giñ ni Cheikh Ahmad Bamba mi ci Touba ginnaaw yarante bi moo féete jaam ñëpp kaw du ci moromu kenn. wa anna xadimal Moustapha faaqa baadahu mu ne alayhi rida maa ngi ñaan ngërëm yàlla dem ci moom waaye nag wal xaq fiihi aqul li ma wax ci moom dëgg la de nee na mu ne wóot nu zaka sëñ Touba mooy biddiw bi gën a leer. su fekkoon da ngay misaal wàllu yëpp ci ay biddiw mooy biddiw bi leen féete kaw bu nu sukaa mooy biddiw bi gën a leer tax étoile pale ci biddiw boobu nu sukaa wal awliyaahu kawaakibun mu ni su ko defee kon day mel ni weer wi wàllu yi ci des yëpp nekk ay biddiw yu ko wër waaye leen gën a yoo xam ni nag madat sanaahu seen leeraay ba wéy na sëñ Tuubaa moo fi des moo xew wàllu yëpp kenn seenu ci sëriñ Tuubaa mu wax ne sëñ Touba moom kon di taf biilihi sarge balaa tax sa munkira gën gi sëñ Touba gën yàlla jiital ko mu ni feeñal ko fësal ko waxtaane ko te bu ragal ko la ci wet kon ci lañ war a xaare weddi dina bari lool képp ku naan sëñ Touba nee na yàlla may na ma dinañ la weddi bu dégg ci waaye bu leen déglu nag da nga am ful la nee na ndax fëlil munkiriina laa yàqoo mu dalilu ki xas ba weddi loo ko andil mu bañ yàllaa dogalul ci moom yërmande ku xas ba weddi loo ko andil mu ni maa bañ kon kooku bu mu la tax a jug ñi gëm daal saxal di wax ak ñooñu waaye bul bul xool ña weddi sa yoon ci ñoom wax jooju nag lañuy ñuy indiwaat kon ni weddi day yàgg ci pénc bi moo tax weer wii bi yenant bi amee ci yàlla boroomam mu rañaane ko jële ko màkkatal mukarrama yóbbu ko baytil maqdis ca Jérusalem foofa la ko waajale xam ngeen ni rajab weer la ci fukki weer yeeg yaa rajab soo déggee ñu ni kazu rajab bin mooy ka 20 la raza yin 7 soo ko boolee 27 lay toll mooy kazu dañ koo def ci adat rajab di weeru ñu ni kazu rajab mooy ñaar fukki fan yeeg juróom-ñaar ci weeru rajab lan moo ci xewoon yàlla rañaana yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ko jullit yi tàmbali di weet am na ñu nekk jullit di weet mooy ñi nga xam ne buñ dajee yéefar yi nii daal wax dëgg yàlla yéen a nekk ci dëkk suñ del see jullit yi mel loolu mooy melaw naafiq yàlla waxoon na seen mbir dañu alif laam miim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin alladina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ñoom ñooy ñi gëm yàlla mooy seen mbir leer inna alladina kafaru sawaun alayhim anzartum am lam tunzirum la yuminuun ndax xatama allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim xisaawatun wa lahum azabun azim ñooñu tam leer na ñooñu ñooy yéefar yi waaye wa min annaasi man man yaqul amana billahi wal yawmil axir ma hum bi muminin yuxaadi'uuna allaha wallazina amanu ma yaxduuna illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradan wa lahum azabun alim bima kaanu yakdibuun kon ñooñu moo garab mooy ñi nga xam ni dañuy ànd ak waa yanant bi ànd ak waa iblis ñu ngi ci wàll yëpp moo tax kon naafiq yi tàmbali woon nañ di weddi yonent bi ci wax jooju ma wax ni yàlla rañaane na ma nga gis saay-saay ba di aboo jëxlin réer lool wax na ni waaw loolu nu mën a nekke yonent bi nee na fii la xëyee genn bis dem ba baytil maqdis yéen daal kii ngeen gëm dina leen toxloo bari woon nañuy weddi waaye abu Aboubacar Saddiq rek moo weddiwul dellool ginnaaw te bu dee yonent bi boo ko wax dëgg la gëm naa ko loolu ne dégg nañ ko ci lislaam ngir kawteef bu kawe boobu loolu nag yàlla jagleel wàllu wu ñëpp xam muy sëñ Fallu xam ngeen ne doomi sëriñ Touba Cheikh Mamadou Fadilu kawteef la bu yàlla feeñal ci kër sëñ Touba moom yàlla dëppale koog ñaar fukki fan yi juróom-ñaar ci la gane àdduna mu dëppoo guddi koog nga xam ne mooy guddi garañaanu yarant bi tax daana wax moom sëñ Fallu ni sama gane àdduna neex naa xam rasulaay dane lay rek ma ni cëpp ah rasulilaay dañuy lay rek man fàllu ma ni cëpp ndax bi rasulilaay demee rek muy jëli julli man ci laa feeñ loolu yàlla ko jagleel bi mu waree ñëw tam moom Cheikh Mamadou Fadilu kéemtaan gu rëy am ci ndax Cheikh Mat yàlla da koy yëgal lépp ci njaboot moo tax sëñ Bousso xam ngeen ni mooy wéyjuru sëñ Mbàkke Bousso mooy maami sëñ Fàllu moom la sëriñ Touba wax ak maam Mor a borom saam mii magi sëñ Tuubaa di maguma mu ne leen dama am gan bu war a ñëw ci sama njaboot war naa feeñ ci sàngam waxtu sàngam day dëppoog rañaanu yenant kooku ma dara am nag ngëneel yu bari dina ko ëndi biñ nee Muhammad bi ñu téenee dañoo gis am faadilu ñu tuddee ko Muhammadul Faadil kooku mooy turu sëñ Fall mu nekk ngëneel bu ci biir kër Sëriñ Tuubaa bi xalifaam ginnaaw jàmbaaram ja sëñ Modou Moustapha Al Karim moo nekkoon ñaareel bi xalifa Serigne Touba toog ak yi yenant bi toogal islam moo tax dara hasard amul yenant bi ñaar fukki at ak ñett la ci nubbawa gi yónni gi ko yàlla yónni lépp la ko yàlla di jox ba ñaar fukki at yeeg ñett ñett mag ndax ñeent fukki at la ñu yónni yenant bi juróom benn fukki at ak ñett la dund kon ñaar fukki at ñett la toogal islam moom Moustapha alayhi salaatu wasalaam Serigne Fallou mu ngi wuutu sëñ Modou Moustapha ci weeru juillet 1945 moom sëñ Fallou toog fi ba 1968 la génn àdduna le 6 août kon su ngeen ko seetee ñaar fukki at ak yooyu la toogal sëñ Touba lépp dafa tolloo mu ne Rasulullaay dañuy lay rek ma ni cëpp Rasulullaay mu ngi génn àdduna le 8 juin le 8 juin 600 année 632. ci le 8 juin 632 ci la yonent bi génn àdduna 570 la fekk wala 632 wala 633 ci le 8 juin 8 juin su ngeen ko xoolee mooy 8 sixième mois 8 juin mooy 8 ci sixième mois sëñ Fallou ne Rasulullah dañuy lay rek ma ni cëpp sëñ Fallou génn 6 août kon mooy 6 huitième mois ñoom ñaar la rek lay yi kii huit sixième mois la génn kii six huitième mois la génn nga xam dafa defaat nii mu waxoon rasulaay dañu lay rek mën a jëkk rasulaay toogal islam ñaar fukki at ak ñett sëñ Fall toogal Serigne Touba ci xilaafam gi ñaar fukki at ak ñett daal di àggale mébéti Serigne Touba moom Cheikh Amadou Fall moo àggaleel sëñ Touba yi mu bëggoon waaye yàlla jaaree ko nag ci ngeen am tawfiix yéen waa Pàkku Lambaay ndax yéen a tontul Serigne Touba li xewoon démb yéen mbaa xam ngeen ni ñeent fukki at ci ginnaaw murit daawul liggéey ci fonction publique déedéet ndax ngeen ko mag ñi fi toog murit yi bokkuñu woon ci fonction publique dañ doon xeex ku nekk murit ci réew mii tubaab bi ñoo ko jiite woon di xeex murit murit daawul liggéey ci fonction publique bokkuñu woon ci dara ngir xeex yoonu murit ñi njëkk a bañ lambaay lañ bañoo ñi njëkk a bañ Serigne Mor Mané Mbaye Serigne Babacar Ndiaye Cargaan Serigne Aliou Diouf Lambaay ñii njëkk a bañ ñoo ànd ak seexi bawal yi bañ ci Lambaay booba yi fii yombul comme léegi de kon su demee ba tàkku Lambaay tollaat ci 2022 jëmmi sëñ Touba sëñ Muntaxa ni door leen rajab bis bi ci njëkk sant ko sëñ Touba yéen a bañoon yéen a am bis bii ñi njëkkoon a bañ ñan la Serigne Babacar Ndiaye Cargaan lu ma bëggoon ci Lambaay ñëpp a texe keroog bi mu nuyu jiyee Serigne Touba Serigne bi ci yërmandeem jël ataaya sotti ko xelli ay kaas jox mag ñi ko wër ni ku nekk na naan ku naan yàlla jéggal ak sama ataaya ji. li mu jox sëñ Babacar Ndiaye Cargaan mu ngi jal suuf si rek ci wetam di jal suuf ba mu nekk jal mu sotti ci ataaya ji génne kaalaam ëmb ci ataaya yi Serigne Touba ji ni man rek bëgguma mucc ëllëg waa Lambaay duñu mucc. bëgguma mucc man dong Babacar Ndiaye ëllëg waa Lambaay bañ a mucc daal di koy sotti dajale ko ba mu àgg sëñ bi bi mu ko yëgee ni ko li nga def loo ci jublu mu ne ko Mbàkke gëm naa la ba faw xam naa ne yow la yàlla jox njariñal jàmm waaye damaa nekk ci gox bu dëgër bopp te caaxaan bari fa lool te neexu ñoo koo fekk te bëgguma ëllëg mu sànq te sa yërmande ji yaatu na yàllaa la yónni ngir yërmande ma bëgg lii nga ma jox du ma ko jariñoo bàyyi koo yóbbu def ko ci teen yeeg ci bërëb yëpp ñu jëfandikoo ko ñoom làmbaay bu ñu mucc bu ma muccee ñu mucc sëriñ bi ne ko dinaa la def làmp ca làmbaay di nga mucc dinañu mucc ku ànd ak yow ëllëg mucc moom mucc na ndax sëriñ Matar Mbay Keere dégg ngeen turam wàllu yi ba mag la seexu sëñ Touba la moom rek la sëñ Touba ma sa wax ci bisu korite génnal jiite julli gi yàlla nee na ku la séen yàlla jéggal seex Matar Mbay Keere dañoo mujj tegal ko tóoj Cheikh Matar Mbaye Kéré toog ci kaw ñëpp di ko xool ku ko xool te xel sëñ Tuubaa wax moom la waxoon ne sëñ Babacar Ndiaye Cargaan borom Mayel ak Mexe Lambaay dëkk lee nag man féete ma penku poussière beeg pënd bii ñëw ci sama dëkk ngeen dox sama digganteeg pënd boobu du ak Tuubaa ma dox seen digganteeg sawara ku leen toppal la dox leen sama digganteeg pënd bi bu mu fi agsi ma dox seen digganteeg sawara ak képp ku leen toppal la lambaay la ñu bañ a woon lambaay la sëñ Mor Mbay borom Touba Mbay fa waxe woon euh, commandant bi ni ko da ngay kàcc waxul dëgg la tey tekki sa ndoom ba tànk gën a yomb lii nga wax noo lànk du ñu weddi mukk sëñ Touba. ya Babacar Thiergane lambaay yaroo. ñaan yi yaroo ñuy muy di boole danaa murit yëpp maa murit yëpp Serigne Mama ni ko fooli la tey moo gën a yomb. daal yéen a gis murid Jaxaar mu xëy na ñaanal jërëjëf mu ko. kon sëñ Moussa Ka ko bind histoire bu leer naññ nga xam ni tey bi mu demee ba teeñ tanoor di xeex seexi bawol yi yàlla da koo natt jarbaatam far dem tuubi ji moom ah, dem tuubi moom gëm gëm waa kër sëñ moom. loolu nag metti ko mun tay lay takkal woote bi sëñ bi xam ngeen li daloon yonent bi yëpp a doon dal sëñ Tuuba yonent bi ñi njëkk a gëm wooteem dañ leen daan mitital di leen dóor Umayya ibn Xalaf nan la daan def Bilaal ba Abu Bakar goreel ko i metti lañ leen daan def di leen tàqaleeg dëkk bi di leen génn ci dëkk bi di leen embargo di leen jaayee ci jënd duñ jënd ci ñoom duñ leen may soxna lépp ngir weddi leen rasulullah Serigne Touba bi mu wootee ñi ko njëkk a gëm lu nekk daj nan ko waaye seexi baw yi ñoo njëkk a taxaw di sëñ Touba jaral nañu sëñ Aline Diouf Lambaye nguur la wan ginnaaw nguur laa la wax borom ñii bi nguur la wan Lambaye la la wan ginnaaw leen soxlawuma ko sëñ Touba rek laa soxla dikk laxasu topp sëriñ bi liggéey la ko lu nekk nag lu nekk yaloon la ko sëñ Touba maa xam ngeen sëñ Aline Diouf Lambaye maa ngi ne sëñ Touba ñetti at téeméeri waaye sëñ bi da koo booleeg barke boole koog njabootam sëñ Thierno Diouf téeméeri at dund na ko borom baayam dund na téeméeri at lu nekk ci barke am na ko lu nekk ci guur am na ko te ba tey ku dem ci seen kër ñu ñaan la Sadio Faye ñoom la waa Lambaye kon lii dañ leen koo delloo li sëñ Mountakha tànn bis bi njëkk ca rajab jox leen ko jox na leen du rëy waaye démb yéen a bañoon ma wax leen ni 40 ans ci ginnaaw amul woon murit buy liggéey ci fonction publique dañ doon tere murit mu liggéey ci fonction publique képp koo xam ni dëgg mën nga tubaab bi ñu ne bu ci murit liggéey lu bari sëñ Cheikh Mbacke ngay defaat naa ko xeex jàmbaari sëñ Modou Moustapha Dia moo xeex lu bari xanaa xamoo ba 1950 la murit mën a jógee Touba ñu suuli ko Touba yii dañoo wax di ko wax nit ñi ñu xam moo tax lu ñu góorgóorlu doyu lii yëpp ay ndam yi sëñ Touba la nii Pàkk Lambaay am ren sëñ Mountakha 1950. ci la murit faatu génn àdduna fii ci Dakar sëñ Cheikh Gaynde Fatma taxaw tem ni dañ koy yóbbu Touba Abdou Ñaan la tudd Abdou Ñaan sëñ Cheikh Gaynde Fatma ni yéen tubaab bi bu seen néew faatoo fii da ngeen koy yóbbu France ngeen gëm pourquoi ñun murit du ñu yóbbu ki yaakaar sëñ Touba mu tëddi Touba xeex leen ni par force dañuy day dem Touba. ba ñu amal ko autorisation loolu am 1950 fii lañ daan denc suñu néew mënoo dem Touba murit bokkul woon ci liggéey ci fonction publique déedéet du ci liggéey di loolu amee nag ñu leen di xeex murit yi njëkk a waranteeru gëm seen bopp xam ni Serigne Touba ñu yëf yi day yàgg yàgg mais murit day am ndam mais nag bu ñu toog comme bokkuñ ci fonction publique nag nañu tasaare liggéey bi nag ñëw fii nag ay pàcc lambaay ay kër gomaaloo dégg nga kër Serigne def lu nekk di jaayi bantak jaay ay matériaux lu ne ñu koy jaay di ko yanu rek gëm seen mbokk ñenn ñi di génn dem bitim réew di def moodu moodu lii andi moodu moodu lii seen liggéey bi moo andi moodu moodu ñuy dem di tasaare liggéey bi ñii dem France ci yooyu jamono ñii dem Espagne ñii dem Angleterre ñii dem Allemagne ñii dem Amérique ñii dem ci Afrique gii ñii dem Côte d'Ivoire liggéey bi da yàqu ñuy fàgg lew ba mujj ñuy defar ay këri sëñ Touba seen njaal benn la waa Pàkku Lambaay liggéey bee ko andi woon boo ma laajee rajo bu ñu ci demee xel yëpp jëm ci rañaanu yaram bi waaye jëm ci sëñ Fall sëñ Fall nag moo ñu moo ñu dollil ak bëgg sëñ Touba sëñ Fall ndax moom rek ka mës a xutba Cheikh Mamadou Fadil moom rek bisu àjjuma ba mag ci yoon wi raw ci ñëw toog ni asalaamaaleykum waaye xutba bu gàtt laay ñaari baat lay doon ñaari baat sëñ Fall waaw bisimilah xutba bu gàtt lay doon ñaari baat ki ñëpp wër ñoo ko yor nañ ko jàpp wasalaam ko koy sëñ Tuuba ay ki ki ñëpp wër tey ëllëg nit ñi a ko am mooy sëñ Tuuba nañ ko jàpp wasalaam jaroon noonu la xutba ñaari baat Cheikh Mamadou Fadil soo demee ci xasidaam moom sëñ Fallu mi nga xam ne ci weer wii la feeñoo dani yaa raiman misla fa mahlan falastatrax wax boobu jar naa bàyyi xel de sëñ Fallu nee na yow mii seeti ko mel sama sëriñ ndànk ndànkul defal ndànk ñu ne ko lu xew mu ne fa lastataraaw doo ko gis taw mi seeti ko mel sama yaakaar Cheikh Ahmad Bamba mu ne waaw mu ni defal ndànk doo ci dégg bët amul mel ni mu am sëñ Tuuba benn nopp déggul ko mel ni sëñ Tuuba génn suuf yorul ko mel ni sëñ Tuuba fii rek kalaam ñoo ko am fii rek waaw sëñ Fall wax na ko ci kaset bu a ko jàpp waay ki nu yor kenn yoru ko mu ne alaaji Fall nee na ki nu yor kenn yoru ko waaw ko dañ ko jàpp baax maa ngi moom rek man ngi moom rek ki doon wax loolu moom mag gaa man leen ci yàlla sëñ Fallu nit ko su ko woo ci aajo dafa jël sa aajo sëñ Fallu ki wax loolu moo faloon moo dimbali woon fal Léopold Sédar Senghor fii la ko fale ci réew mi te li mu koy fal catholique la sëñ Fall catholique laa la wax de Senghor agrégé grammaire française ñibbi si Sénégal 1935 la agrégé ñëw les années 46 ànd ak maître Lamine Gueye moom Senghor ñu admettre ko ci académie française Léopold Sédar Senghor mooy premier président bu Sénégal di catholique France da ko fonk ci xam-xamu nasaraan ba dugal ko ci académie française mu nekkandoo fa ak Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre Marguerite Yourcenar li may wax lu ma xam la Senghor ñibbisi si fii jub jullit sëñ Fallou ni ku njëkk a ñëw ci dëkk bii wax ma dara looy liggéeyal sëñ Touba ci ñu soxla réew mi ma jox la réew mi sëñ Fallou ni ku ma fekk Touba ci mboolem ñi xëccoo réew mi ku ma ci wax dara looy liggéeyal sëñ Touba rek ma jox la réewum Sénégal man sëñ Touba rek laa bëgg borom barak ku ma ko tudd rek ma jox la réew. Lamine Gueye la maître avocat bu mag la woon ko bàyyi xel Lamine Koura Gueye ah, faa moo fa njëkk bi mu ñëwee ba agsi sëñ Fallou jox ko enveloppe bu 50 000 ku bëgg réewum Sénégal ñëw ci sëñ Fallou jox la 50 000 doo ko delloo. Lamine ngay jël xaalis bi ni ko jërëjëf Mbàkke bul fàtte Youssou Mbergane Diop moom tam amagul loolu la ko Youssou Mbergane Diop ba lay fi tënkee bu man am naa ni ko waaw daal koy jox. daal cay takk xam li xew xam ni ñi kon seen intérêt lañ jiital ñëw du jullit sëñ Fall jox ko enveloppe def ci cinquante mille. mu jël ko ni ko mbàkkee eh bien su ma ko jëlul day mel ni dama ko nanguwul te teraanga la moo tax ma téye ko sama loxo mais dama bëggoon ñaan la ma delloo na ko ndax man wut si xaalis andiw ma dama am ambition pour defar réewum Sénégal te xam naa fi yële sëñ Touba toll soo ma falee naa la jàppale ci liggéey sëñ Touba mi sëñ Fallou ni jeex na dégg ngeen li mu wax wax na ma ko li mu bëggoon a dégg man sëñ Touba rek laa am Léopold moo wax sëñ Touba dinaa ko jox daal di Senghor seng ca kaw waaye na ko ñëpp xool ne ko jàkk rek fal na ko fal bu ko kenn piis bu ñu ko pexe pexal fal naa ko. am ku raam ni ko Mbàkke ah réew mi ñu ko wan ginnaaw daa bari te borom kurus yëpp wan nañ ko ginnaaw sëñ Fall ni àdduna bépp wanoon ginnaaw Léopold te man Fall ma ni ànd na ak moom yàlla ànd ak moom bu àdduna bépp yi daanu foo tollu dégg seen dàng gi ndax far naag si Léopold te yàlla man la faral maa ngi sëñ Touba loolu kenn mënu ci dara 60 ba vingt 81 mu toog fii damaa bëgg ñu xam li xew li histoire bu toog fi sëñ Fallou ka defoon loolu moo ni sëñ Touba amul morom réew mi am na fi at moo xam ni kenn mënta am taw kenn te xam ñu taw programme yàlla la ku ci bëggut ak moom doo ci am dara taw taw programme yàlla la. inna allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu lxaysa wa ya'lamu ma fi l arham ma tadri nafsun maza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut ndax innahu huwal alim huwal alimul xabir tamu programme yàlla la yàllaa ni ci sóotu luqmaan jeexital moom laa jàng léegi nekk na ci yàlla jigéen li ñuy jur programme am taw yi li koy wàcce programme am la nit ki buy yeewu li muy fàggu ci wàllu wërsëgam programme am la waaye nekk na ci nit ki fi muy deewee programme yàlla la kon ku jubóowu teg yàlla doo ci mën dara am na at fii moo xam ni Senghor daa jaaxle ndax taw bu yeex a am ba mu wax ko sëñ Fall sëñ Fall ni ko allah ëllëg rek ni nga ko bëggee ëllëg rek bi mu nekkoon ëllëg rek régions yi ci Sénégal yëpp a tooyandoo moo toog ba xaaju guddi sëñ Fall ni wóolu ma Léopold ci ci ci këf ki muy téléphone bi ñu woo ko mu ne ko allo Léopold mu mi def mbaa fépp tooy na. ndàpp siif mbaa fépp tooy na Senghor ni ko fépp tooy na xépp Mbàkke amoo morom kooku programme kooku dafa jeex tàkk ci yàlla Serigne Touba ni woon sëñ Thierno Mbàkke gelongal nettali na ko sax baayam sëñ Omar Mbàkke gelongal la ko sëñ bi wax Omar mu ni ko Mbàkke moog ñeneen mu ne ko dama leen di yónni ci su ngeen deme ne leen ko doom ju ma la gërëm sant naa ko gërëm naa da ngeen ko defal mu dugg ci noppam ni sant naa ko gërëm naa ko man mii nga xam maay suñ Tuubaa di yaakaar ñu ne ko Mbàkke dina ko jote noonu ni ñokket bay dem sëñ bin toog leen ma dolli ci leneen xanaa xamu leen sëñ fàllu moomu lu ngeen gis ci man ba mu yéem leen doon ta ci moom dinaa ko xaj-xajal ci moom ci moom muy man may lu ngeen gis ci man doon ta xajul ci moom sax ndax li ci man war ta xaj ci jenn jaam fexe ba mu xaj ci moom may moom muy maam ñu dem denc loola ndax loola biir la waxuñu ko sëñ Fall waaye sëñ Omar nee na li ci man dinaa ko xajal ci moom waxuma ko waaye gërëm naa ko ji sëñ Touba wax joxal ko sëñ dox nag ba jëmmi jamono sëñ Fall tëdd fi lu mel ni tawat yaram bi xaw a lañ mat nee na ma dem di ko seet di ko fekk ko fi mu tëdd ma ne ko mbàkkal yaram bi def yaa sant baax sëñ Omar maa ngi sant baax wér naa baax a baax xaj-xajalu sëñ Touba metti rek moo xaj-xajal jëmmam ji sama jëmm ji. kii ko waxoon na ko fekkewaat nettali ko sëñ Touba doon rokkasaat jëmmam ji sama jëmm ji di summi ko ci man xaj xajalu sëñ Touba métti rek mooy tawat ji du dara sant bu baax. 1945 Serigne Thierno Diaw xalifa sëñ Mat Diaw Paxa moo ma nettali mu ngi fii dul ba tele la mën naa génn te denc na sama rakk yaay ba am ci njaboot yooyu sama rakk la xam naa ko bu baax moo ne ma 1945. sëñ Mat Jaw Paxa fii ci dëkk bi Paxa sëñ Fàllu fekk na ko fi bi mu ñëwee fii mu ganale ko ba sëñ Fàllu yi dem mu dàq ko ba ci oto bi moom sëñ Mat Jaw Paxa mu ne bale ma fi bàyyi boobu ba léegi mooy yóbbante sëñ Tuubaa moo tax may dund ba tey sëñ xam naa ni feeg waxuma yóbbanteem bi du ma fi dem mag ñëpp dem nañ nag mag laa damaa bëgg a waaj dem kon yóbbante bee ma fi bàyyi kaay ma wax la yóbbante sëñ Tuubaa te waaj dem sëñ Fall ne ko bisimilah lu mu yóbbante woon mu ne ko keroog bi muy woote màggal gi man la yónni maa woowi ji sëñ Balla Fall Dieng mu wax ko mbirum màggal waaye dafa am lu ma téye yoon ni ma sama doom ji ñuy wax sëñ Fall saa su demee ba do jël sama xilaafa gi bu demee ab biir na nga ko téye ni ko saa su ko wootee indi ko Touba dinaa summi ko ci moom muy man may moom lii ma fi bàyyi woon nag. saa soo ko wootalee sëñ Touba Touba dina nekk yow nga nekk moom sëñ Fall lu ko ba demee waat ko woote ko waay ndax moom rek laa bëgg a doon waay bi mu demee sëñ Mat Jaw Baxa woo taalibe ni leen bàyyil leen ma toolu wëttéen te ngeen sellal ko lool ndax li ciy jóge ci lañ may fàggule perkal bi may demee ci barsaq 46 sëñ Mat Jaw Baxa dem 47 am na ñu wees 8 47 sëñ Fall daal di koy woote Touba am na ma ñëpp fekk fii waay mu gën a neex gën a duun rek di ko santaane woon tëdd fii di ko seereel boppam na ñëpp ñëw defe naa kon loolu war naa tax sëñ Muntaxa tànnal leen premier rajab ndax ci weer wii la sëñ Fallou feeñoo te màggal gi moo ko wooteel sëriñ Touba biir Touba te tey àgg na ci dimension internationale mondial wax naa ni màggal gi am na sax kuy ngat mbirum murit nekk ca France wala Italie wala Belgique waaye moom sëñ Touba koy dimbali te màggal la koy dimbalee xam nga ci nan pour mu ñëw ci njabootam day bàyyi ba màggal gi jot ñu wàññi billet yi mu jënd billet mën na ñëw ci njabootam toog kon moom màggal gaa koy dimbali xaar tam koy critiqué day bàyyi ba màggal gi ñëw bii yi wàcc mu gaaw jënd billet pour ñëw ci njabootam te dimension bi màggal gi am tey àgg na fépp ci àdduna fépp fépp rek reportage yi am amul fenn journaliste yi ci wàcc amatul fenn télé yi ci def reportage amul fenn màggal rek sëñ Fall ko woote dagga sa baara xam nga bu ko ñaareel kuy murit ak foo muritoo amee nga cant sëñ Fall xam nga lu tax dafa bind ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett yëpp ko sëñ Touba ci loxo boppam bokkut ak yi mu ànd ak ñu ko jàppale bis mu bind kaamil ba àggal ko yëpp ko sëñ Touba sëñ bi xool kaamil bi ni ko Cheikh Mamadou Fadilou sa kaamil bi gën a yéeme mu ne ko lépp ci sa mbaax lañ ko bindee Mbàkke sëñ bi ne ko waaye far nga ci am yóbbante sëñ Fallou ne ko yóbbante kan mu ne ko yóbbante bi yàlla sa borom mi ma sàkk sàkk la nee na da ciy yóbbante sëñ Fallou ne ko lu yàlla yóbbante mu ne sunu borom na kaamil bii nga bindal da neex daa bëgg nga bindal ko moom tam kaamil bu mel nii. sëñ Fallou ne ko waaw waaye nag nee ko su ko bëggee damay fay de mu yàlla su ko sunu borom nee na lu muy fay. ne ko na bàyyi ba ma àggal ba ma àggalee ba mu xool ko mu jaxal ko mu fay sëñ Tuubaa ni ko sunu borom nee na nga tëju tàmbali ko mu tëju bind kaamil ba mu àgg mu yëg ko sëñ Tuubaa ko wanal yàlla ndax jaral la ko sëñ Tuubaa di niir kaamil ba mu ko sunu borom nee na tuwaarkal la nee na léegi lu ci ciy fay sëñ Fall ni ko nee ko dama ci fay ku la bëgg te muy dëkk boo ëllëgee bu ma lakk ci sawaram si sëñ Tuubaa ni ko li muy jafe-jafe yàlla nee na nangul na la ko ci kaamil bi fii ay bëgg ñu bëgg sëñ Tuubaa fi ne kon sëñ Fallou amee lañ ko njukkal xam nga bu ci topp jumaa yi sëriñ Tuubaa ji moo ko àggale te mëneetu sëñ Tuubaa da koo bëggoon moo ko àggale Cheikh Ahmadou Bamba jumaa yi sëñ Tuubaa ji le 7 juin 1963 mu inauguré ko xam nga ñaata la ci def 667 millions 548 mille 335 francs 667 millions. 548 mille 335 francs loolu la ci gën a milliard xanaa 677 millions laa wax de loolu la ci def inauguré ko 1963 yëkkati sooroon bi gën a kawe tudde ko bàyyi góor ñi jàmbaari yoon wi buntu yoon wi ki kenn xamut lu mu doon maam Cheikh Rafal Babou Mouridi làmp sama yaakaar bu ko waaw kon sunu yaakaar kooku nga xam ni ñëpp la dimbali. baa xam nga ni maam Cheikh Ibra Fall ñëpp la dimbali ñëpp ñëpp moo tax ñu xam dara ñëpp dañ koo delloo njukkal ñëpp ñii dañ koo woy ay xasaay yi ñii di ko yóbbule teraanga ndax ñëpp la dimbali keroog 1926 bi muy nuyu ci borom daaru maam Thierno borom daaru ñu ñëw ni ko Cheikh Ibra fii ñëw dañu doon laaj ban buntu lay duggee dañ dañ daaneel sàkket yëpp Cheikh Ibra Fall amul yoon fu ko neex jàddu dañ koo bàyyi waaw ah, jërëjëf jëf Dieng hmm? jërëjëf dani nañ koo bàttil fu ko neex jaar dugg xanaa xamoo maam Cheikh Issa Dieng borom Dieng nag la kan këram saa su nag ma see daanu wala gëleem wala xar sàllare wi Cheikh Rafal la koy seeti kenn du ko jëfandikoo ci këram barki dem wax naa ko ci Daaru Rahman Genne te sëñ Abdou Latif kenn xalifa barki dem maa fa waxtaan du yàggul ndax xaadim kee fanaane ko jig nag bu ma sa daanu waaw nag mu mas a daanu ci biir këram sàllare bi ci maam Cheikh Ibra Fall la ndax dañoo dimbali xam nga ci nan xam nga ci nan Serigne Thierno Diaba ma nettali ba tey li may bëgg a wax moo ni ma bu ma koy nettali sëñ Cheikh Serigne Cheikh Sidil Muxtaar mooy Serigne Touba boobu sëñ Muntaxa toogagul ci xalaat ma dem di ko ziar mu ni ma sëñ Ablaye daal sëñ Muntaxa ma yéem lool moom sëñ Diaba la mu ne ko ah mu koy yéem na ñëpp jaw mu ne man ni ma bette bërki man daal damaa toog ba mu yàgg rek ndege yónni na benn xale ni ko xoola ma ndax ceer ma jawan ci kër gi te bu mu xam ni maa koy yër dama dama bëgg bett ko si yàw ndax damay topp jeexitali sëñ Tuubaay te day doomi sëñ mën jaw ba xam ma bëgg koo betti te xam naa ni soo ko yëgalee ni maay ñëw te mu waaj ko mu yàgg dama koo bëgg a bett rek xoola ma ndax mu ngi ci kër géem déet rek ndaw li ñëw bu ci buntu kër gi yëglu daal ni waaw bàyyi carnoom ci kër gi nee na dongali ni ko waaw bàyyi carnoom si de mu ne xanaa léegi war naa mage de mu ni waaw mu ne ah dama doon da koy siyaare mu ni déedéet dama doon laajte rek ah, xam naa dinaa fi jaar fan yi daal di gaaw daw ni sëñ Muntaxa mu ma toog ginnaaw tàkkusaan tëdd sama piliyaan ci ëpp kër gi rek nee na sëñ Muntaxa ñu tëllëg bi jaaw bu rafet nee gàttu kaan bi rek wut si ma nee ma watte ci kaw piliyaan bi rek raam ah, Mbàkke maa ngi tuub de mu ne ah matu ko matu ko si Thierno nañ daal ne rek dikk ah bisimilah di ko ah waa Thiel daal di ma tey damay xalaat suñ Tuubaa ba mu tijji xamu fu ma nekk dañ mën taxaw ma ko topp di ko xalaat ba mu yéem ma lool ma waaw. Euh, ma bëggoon nag mag ñi seen bàyyi nekkoon ay pàcc teefu sëñ bi jege ko lool ma am ci xese yu wér yoo xam ne koo dundal sëñ Tuubaa mu wóor ma ni sëñ sëñ Mat Jaw lu wér nga may wax ci diggam ak sëñ bi moo taxoon lu bëgg ba ma ci dañ Ceerno nee na ma ne ko akamaa yomb bisimilah Mbàkke ko am naa ci ndigal ne ko sama baay sëñ Mat Jaw Paxa nee na nuyu na Sëriñ Tuubaa sa maam yoor yoor daa ñëw bu koy nuyu jox ko loxo sëñ bi fay ko ba noppi ni ko Mat Jaw mu ni Mbàkke mu ne ko bul toog fii demal toog ne fii nga bëgg a toog Iblis a fi toogoon di wax ak man te yow dama gërëm bëgguma nga toog ci place Iblis demal toog ne nee na mu ni ñokket moom sëñ Mat Jaw ni alhamdulilah ba ma amee sëriñ bu xam ne place Iblis di ma ko tere nga daal di toog nee dem nee na sëñ bi di mi nga ba mu yàgg mu ne ko mët jaw mu ne mbàkkee mu ne ko tey de Iblis yàgg na ci kër gi wax ak man am na lu ma ñaanoon bu yàgg ma gàntal ko lu jiitu may dem ci géej gi saa su ko laajee ma gàntal dafa laajoon lu ma koy may ci sama njaboot pour ñu wéttali ko sawaraam mu laaj ko miraaran ma gàntal ko ni ko sama kër liggéeyu ma ko yóbbu sa liggéeyloo ma koy yóbbu sawar sama kër gi amoo fi wàll mu dem dër bopp jël si waat ñaan ma ko ginnaaw géej ma gàntal waaye tey jii nag jaar na ma fu nekk mujj naa ko may sëñ Modou Diaw ni ko ah Mbàkke ñoo ko may mu ne may naa ko ñett sëñ Modou jaw ni ko suñ ko sañee xam ñett nga may Iblis ñu war koo wéttali sawara mu ne may naa ko jigéen bi ni man la yaakaar te nanguwut a sëy yàlla tax nee na sëñ Muntaxa di ñuy tekk di ma xool nee na ni ak kanam ko ku ko may mu ni may na ko ndaw mu ni man la yaakaar te nangu ta liggéey may na ko mag man la yaakaar te nangu ta jaamu yàlla Iblis ne dañ ko wéttali ca safaan nee na bi ma waxee lii sëñ Muntaxa ne ko sëñ Modou Diaw de ko déggee ci sëñ bi mais sëñ Muntaxa ne ko mbaa sëñ Modou Diaw wax na ak rek nee na mu ni ma waaw dañ mën jaw dani ba mbàkke da yow da ngay mag loo wax noonu la waaye bu fekkoon fekke naa bi la ko iblis di ñaan doo ko may dara li tax duma nag nga may ko dara ndax yow xaadim rasul nga yaa wuutu yenante te yaa ko war a defaral njabootam te iblis daa waat ni ëllëg bi la war a am ëllëg ndax yàllaa ko waxoon ci sootu doxa ni ko dinaa la may ba nga gërëm te suy gërëm yow mi yaay buntam kon Iblis waru woon a am kenn ci sa kër ko fekke woon doo ko may dara ndax mbàkke jigéen ñi ëllëg yow ñëpp dañ lay gëm te ñëpp duñ mën a am borom kër ngir sëy xale yow la ñuy gëm ëllëg ñëpp duñu am liggéey bu matale ngir liggéey mag ñëpp ëllëg yow la ñuy gëm te ñëpp duñu am ngir ku ñu matale seen jaamu yàlla kon su ma fi fekkoon doo may dara Iblis ndax yow ndam nga war a am te soo ko mayee Iblis mu tëddee leen ëllëg doo am ndam yenant bi doo am ndam te ndam lañu war a sëñ Muntaxa bi mu ko ko waxee nu mu def mu ne bi mu ko ko waxee sëñ bi daa ànd ak xaal daal ni daal ni bërëb moom sëñ Tuubaa yaakaar ni jaam ko ràpp tëj ci biir bàyyi sëñ Mor Jaw fu mu toog mu toog def fa biir nee na sëñ bi ni jarañ génn kaala gi def ni mel na lu yot ñàq yu mel ni luy topp sëñ bi ñëw ni ko Iblis a gaaw tànk ba mu laa doon jéem a dàqiwaat waaye gaaw na rek. far na bay bëgg àgg buntu d'abord waaye damaa far yónni Ibra Fall moo gën a gaaw dab na ko ba indi ma <laughs> ah damaa far yónni Ibra Fall Ibra Fall lan ko dabi buntu d'abord indil na ma la ma joxoon nee na ma àggee fii ci la Muntaxa jàll bu nee na ma toog rek di ko déglu ba mu àggal mu ne waa kay sëñ Thierno daal may jox ñaar fukki junni jox ma ay dàll jox ma lu nekk di ci ñu ma nañ ko jàpp ngan li at mu jot ñëw fii ah nee ma ne ba Mbàkke rek bala ngaa ñëwati maay ñëw. du ñàkk yar du ñàkk taal bi ngir sëñ Tuubaa Mbàkke képp koo xam ne la nga yor yaakaar nga ne sëñ am na ca dara fekk la fii nga terap ngir sëñ Tuubaa barke Cheikh Ibrahima bu mu bëgg a doon waxaat barke Alxuraan Karim bañ ma ci dara barke alxuraan karim billahi wallahi na fi yàq barke Cheikh Rafa na fi yàq li mu Cheikh Rafa defar ku ko xamul ku ko xamul doon ko doon ko jox do yàq do waxaat jox leen ko jox leen ko ba xolam seet jox leen ko jox leen ko man bëgguma jox ko jox ko jox ko jox ko jox ko jox ko xam nga lu ma ta wax kissa yi nay dëppoo li sëñ bi dund waaye xisa du am ah déedéet loolu waxi dof rek la yoon wi dafa ami may am na yooyu mënoo ko cee génn te ci la bokk da ngaa mën a dem attaqué sëñ Mbay Saar da nga koo ñemee boo demee mu mu war la loo mës a gis këram dañ daan tëgg kër sëñ Mbay Saar tëgg amu fa ah kër seex ma diba sil la nag ah kër sëñ Mor Seck rek jàll na nga xam tax ñu koy def sëñ Moussa Ka mi mën a jàng lu mu wax murid yi xam leen ni Babacar Sarr mag jóob la ku nu woo mat du xam fu muy jaar tëggam ma ak tëbam ma léppay lasaraar yëngoom nga ak dalam nga léppay lan waar gumbal gumba gu jébbal tum ngeen ngi njàccaar du uni sii ngay jaar sofóor a yor baa naankat bu màndi dootul tàggoog bàkkaar mag jóob bu jeex ci yàlla dootul bàkkaar nga mën a diingat loolu dafay am xam nga lu am solo royal te romb lu la doy royal lu la doyul romba mais critique a bon moom critique baaxul loo xamul rek weddi ni mënta nekk loo xamul weddi ni mënta nekk te xissa am fi sëñ Muntaxaay sëñ Tuuba day waxtaane ci sëñ Cerno Jaw la dem mu koy waxal xissam ba mu àgg ci jël na koo mën a gën a jege sëñ Tuuba sëñ Muntaxa mbaa xam ngeen ni bi mag ñi xam ni mooy sëñ Tuuba du jamono yii 1988 la mag ñi am gis-gis xam ni mooy sëñ Touba dañ ko xam ci borom daarul Minnan yii ma lay bëgg a wax ku dul sëriñ Touba mësu koo am sëñ Muntaxa moo ko ñaareel ba yoonu murit jeex ku la neex koo xalaat ci la bokk koo xalaat mooy tête de liste ci la bokk sëñ Touba yi pee sëñ Muntaxa dees kii may bëgg a wax sëñ Muntaxa képp a mës a yilif Poroxaan Njaareem ak Touba. ku ginnaaw sëñ Touba ku dul moom ba nga yilifee Poroxaan doo yilifaale Touba wala ba nga yilifee Touba yilifaale woo Poroxaan ñett yëpp la boole yilif garaat la 1988 la sëñ Mor Mbay Cissé wàllu yu mag wa ca njaarim génn àdduna bàyyi sëñ Basiru Cissé moo ni woon sëriñ Touba ma jàngaleloo alxuraan ndigalam la moo ni ma woon Mor Mbay Cissé saxal ci jàngaleel ma alxuraan lu yàgg-yàgg saa sooy génn àdduna fu ma mën a fekk dinaa fa jóge ñëw julleel la sama bopp maa ngi ñëw julleel la sama bopp xam ngeen ni 1988 bi muy génn àdduna boobu sëñ Touba néew fi ci saayir te moo ko waxoon sëñ Abdoulaat a fi ne di sëñ Touba sëñ Abdoulaat ne ana sëñ Muntaxa mu ni maa ngi mun demal julleel ma sëñ Mor Mbaye Cissé keroog ba mu taxawee jullee ko rek la ñëpp war a xam ne mooy sëñ Touba sëñ dégg ko di lii mu def bu yàggul sëñ Muntaxa wane na yoon bu yàggul la di juillet août bii rek nawet bi të ñëpp jaxasoo ku ne la nga la nga xam def nga ko yëpp taga témbe taxaw ah mbas mi di yokk ñu naan ay 1000 cas par ci réew moo xam ne ñëpp ay jaxasoo ga nuyoo ci corona bi ñëpp ay nuyoo ñu dem ba tiit jaaxle waxuma financièrement lim ci def mu toog ci jataay moom sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa ni cëpp jàkkaar la moom looloo indi affaire bi tax ma woote dafa toog ci jataay sëñ Tuubaa ni ca cëpp ne ko Muhammadul Muntaxa gërëm naa la alarba bi njëkk ci muharram dinaa la nuyu sa Tuubaa nag ma seet ni warañ dem ala ko wax sa këre la ni warañ dem sëñ Muntaxa tëju mooy tëju fukki fan ak juróom yi mu tëju woon njaaree xam nga lu tax mu tëju fukki fan ak juróom la Moustapha gane si sëñ Touba ci këru bayt rasul ci biir njaareem sëñ Muntaxa tëju 15 jours moom it di xalaat lan lay terale sëñ Touba bu ñëwee mu def retraite fukki fan ak juróom daal ni li gën a wóor terale ko sëñ Touba mooy xasaay dem yi mu jëmee ci yàlla ak yenante ni damay woote bisu xasida na ma ñëpp fekk Touba ñu dalee ko suba ba tàkkusaan suñ di noppee nu ñaan yàlla suñu borom jullit sañ naa ñaan ñu dem ba tëj ma délégué sama sëriñ sëñ am sama sëñ son mi nga xam ne am na lu ma xam ci moom moom la ma yàlla boole sëñ Saliou woo ma booleeg moom am sa bu sëriñ booy sama wasiila te sëñ Saliou na demal ci moom saa su la gërëmee gërëm naa la ma ànd ak moom te ñii xam nañu fi ma sëñ am da teg bi may mujjawoo matagul weer moo ma wool boppam ci téléphone am ne ma mën a sëñ am sa Mbàkke son yi damay defal guddi ajjuma sëñ Daaru Asan Njaay te yow rek ama doy ci waxtaanal ma koo koy kat daa ko fekki Touba bi may yeewi fajar la ma yeewi mu ñëwaat Dakar moom la délégué ni ko jiiteel ndax nga am xaas ci xasaa yi sëñ Muntaxa nañ ma fekk si Touba dale ko suba ba tàkkusaan biñ ko defee ba tàkkusaan mu ni ñaar laay ñaan yàlla sama borom mbas mi jaaxal nanu na tuxu nawet bi jafe na ndoxum jax mën a ñëw àllarba la ko wax alxamis dañ ci teg àjjuma yëf yi tàmb ñu àgg ci la le 14 mu tolloog alwahaa bu yàlla miy joxe joxe akoon yàlla jox ko ndox mu jaaxal Sénégal gépp mbedd yi fa nay taa baan naa ci ñetti kat kat ndax ndox mu bari mbedd mépp yi mépp koo dem taataan yi taxaw loolu jubóog yàllaa koy def xam nga lum mu maa ngi ñaan mbas mi jóge fi 1000 cas yi soppi ku nekk 0 cas 1 cas bu yàggul nag li lim lay wane ni mooy Serigne Touba Serigne Touba ju wér ju di Cheikh la ci bokk mu woote 24 heures si kuréel laay nañ tudd yàlla rek bàkk maam Cheikh Rafal mooy buntu yoon yi day wane yoon. tey ki leen tànnal bis bii kenn du moom sëñ mun Mountakha kenn du moom te day bégee waxtaane sëñ Touba moo tax nañu génn ci waxi complexe yooyu dafa am loo xam ne murit warut a tardel temps maa ngi koy wax bu yàggul ci télé bi nekk ci ay réseaux sociaux di warantee ku weddi sëñ Tuubaa du ma la diglu aw ma sa temps man ba nga weddee sëñ Tuubaa laa la weddeeg loo am ba nga wanee ginnaaw njabootu sëñ Tuubaa laa pare ci yow duma la déglu man du ma wax ak yow mais li may metti nag mooy yenn murit yi tudde seen mbokk murit ba bokk ci yoon wi te lu ñuy def critiquer seen mbokk murit bërki démb daa am koo xam ne nee na dafa may raddu bayit ba ma wax ni sëñ Tuubaa ne xafistu ma anzalahul jalilu qabla wusulihi maa tartili ak xafistu ma anzalahul jalilu qabla nuzulihi maa tartili man xanaa war naa jomb di wax bayit bu ma liirul wala jàngu ma waaye mu def sama vidéo croix attaqué ma ba leen mu waxul lii xam nga ni waxu man nu may amee bayit bu may créé léegi nag la ca soof am ñu ñëw deewoo gis nga kii lim la wax léegi mën naa la jox numéro ngeen échangé waxtaan ma ne ko déedéet sëñ Malick Bassine si nee na nit su la yeddee ci biir néeg daf lay laabire su la yeddee ci pénk da lay weer soxlaatuma dara lu mayo ndax la jekkoon mooy bu dee am na sama téléphone bu ci defee yitte am ko jëwrin ma ne waaw bayit sàngam da ko wax te xamuñu foo ko jële fan la nekk ak yooyu ma leeral ko waaye xëy def sama vidéo daal di léegi la ma koy tontu mooy yow ndax xam nga li sëñ Touba bind lépp d'abord bala ngaa wet ndax jenn doomi sëñ Touba du la wax xam naa li mu bind lépp doomam sax du ko wax benn saadix du la wax li sëñ Touba bind lépp xam naa ko ndax li da ci umpam kon nooy weddee nit ni li mu wax du sëñ Touba ci bayit boo tiim amut yàq ci aróot amut yàq ci luga amut yàq ci naxwu dara ñun la sëñ bee nga ni waxu ko léegi nag yooyu di commencé am ci réseaux sociaux yi murit yi dox war nañ ci génn dañu génn ci yooyu attaqué sa mbokkum taalibe bi moo bokkal pas-pas sëñ Tuubaa da nga ni bu ëllëgee bu sëñ Tuubaa yi xeeti la ñoom bëgg ngeen ànd dend ak sëñ Tuubaa da nga koy attaqué ci sëñ yooyu nañ ci génn ak di wax wax yi daanukat naan déedéet yoon wi ay waxtaane si yooyu bokku ci dee sëñ bi daa njaboote ku ne maam Cheikh Rafaal ci yoon wi julliwul loolu nuñ koy lijjantee julliwul wóorul te nit du yëkkati loxoom ni maa ko raw ci yoon yi ku ko wax waxoo dëgg maa raw Seex Rafal doo ko dégg de te julliwul wóorul lool noo koy layale kon da ngeen di xam ne yoonu murit lu ne ci am te sëñ Touba moom mënoo toll nee na ba du la wax dëgg lu tax sëñ Touba seetaan ko ci noonu di ko liggéeyloo di ko gërëm ni ko yaay sama buntu buntu ci kër gi il faut ñu xam yi xew am na bis ku ma woo ma li nga wax ci Cheikh Sa Diène daa ëpp ah yarantu bi di ko nàmpal ma ni ko mais noonu la demee luñ ko wax te mu demee noonu mu liggéeyal yàlla ba Moustapha feeñu ko jox ko weenam ni ko li des sama meew jox naa ko xaadim rasul demal seeti noonu la deme ca mbal mu ànd ak mu dem wax ko taalibi bu ñuy wax sëñ Sóori Diop mooy premier taalibi bi jébbalu ci moom daa jébbalu ci Seex Isaa ñun doo wax loolu parce que yarante bi di nàmpal ëpp na te ay wàllu yi di ko waxee feneen nga koy gëm ca Égypte ak ca Maroc te mënoo koo nangul nit ku ñuul tax mënta nekk dañ daan toog sëñ Tuubaa ni yàlla sama boroom nee na loolu garaaw loolu garaaw la yonent bi ñëw na fi léegi jotal na nangam loolu daawu ko wax loolu garaawul nuyoo la kii mu ni kan lañu ni ko soxna si doomi sëñ Siréloo mu ni bisimilah jàmm léegi la sañ Siréloo toogoon fii de te booba fa wàcc na liggéey ba am ñaar fukki at yooyu di am yoo xam ne mbiri barzàq la ngay indi ndab sëñ son yi boo ko ne te sama sëriñ te sëñ son yi bu kenn gënu koo lox ci soriantul islam yi nga am na yooyu bu ñu ko bëggee dugal ci yoon dootuñu waxtaane sëñ Tuubaa dañuy wàññi mbaaxam ci te dara jaru critique bu xale bu jàngagul dara di ma critiqué du tax ma wàññi mbaaxu sëñ Tuubaa gi ko yàlla may ku ko mënta dégg tuxul man fa ma nekk mooy sëñ Tuubaa kenn la ku ko mënta dégg tuxul da ngay dégg sax mu rib la woon naan baatu kenn du sëñ bi moom da ngeen ko seetaat kenn du sëñ ah dañu koy wax ah suñu émission kenn du sëriñ bi te mënoo woon di ko mel ni moom te duñu wax ni kenn du moom wóor la ne mënoo woon di mel ni sëñ Touba doo fi kenn ba mu tollook sëriñ bi may kon kay kenn du moom yu yu yu yu yi sax fo yi démb rek gis nga ñu naan dëgg-dëgg kenn du Sadio Mané ndax biyam bi ki fo rek ndax lan la daal libéré senegal rek ñu ne kii kenn du moom waay sëñ Touba libéré l'islam jëpp ñu kenn du wax ni sëñ Touba amul ma amiin waaw. ngoog. mu ngoog mu ngoog kon lu nekk yàlla da ci tànn yàlla jëlul rek dara daal ne diw moom la rek wala du diw dégg kenn mënta nekk ñëpp a yem rek mënta nekk di sëriñ Touba libéré islaam ñu xoje ko fii ci réew mi ngeen gis li ci tubaab di yàq ak liñ ci xeex yi kilifa ak liñ ci daaneel sëñ bi taxaw ni dinaa ko yëkkati ba fi ko yanant bi bëgg dara du ci yàq def ko ba nopp ñu bëgg ni di kenn du wax ni sëñ Touba kenn la te buñ la laajee doomi sëñ Touba nga ni kenn amul doom yu ni mel ñëpp ko nangu doomi sëñ Touba kenn amul ku ni mel dëkkub sëñ Touba nga ni yii Touba kenn nag benn dëkk melul ni moom jumaay sëñ Touba nga ni dëgg dëgg jumaam ji benn la waxuñu ko ba tey jumaay Touba jenn la màggalub sëñ Touba nga ni yii bii bis kenn amu ko sëñ Touba a moom lii te buñ nee la kenn la nga bañ. moom rek la yàlla may. ngay lekk ngir yàlla. kaay lekke saraxu kay waaw armeel yi mu ko waaw allah lay la dem naa fa demati fa dem waaw wër kat a neex a waxal man damaa wër wër ci àdduna bi waaw wër kat a neex a waxal damaa wër ci àdduna bi boo wëree ci àdduna bi rek boo delsee xam ne sëñ Tuubaa kenn boo wërul nag man ngaa toog fii di werante ak di ko wutale classe ak mais boo wëree hors catégorie lay doon li mu man kenn mënu lim daan fàggul ku ko liggéeyal kenn mësu koo fàggul ku la liggéey li ko yàlla jox moom rek la ko jox nanu gëm loolu te dund te sunu bis yëpp ñu def ko cant ndax moom kat wa umuri ilal jinaani ay du la wax sama bis bu nekk day nekk ak bisu cant di feet di sant yàlla sama borom ba bis àjjana rek mun taxaaloo rek la wax ay na na nañ jàpp rek day gën a neex di gën a taw féexere di gën a xel ba àjjana rek incha allah yaa na mooy sëriñ Touba naka leen gën a jege sëñ Touba ñoom bu ñu bëggee gis seen maam gis ko léegi laa la wax li ci maam sa da koy jël de bu ñu bëggee gis sëñ Tuubaa ñoom gis ko léegi xam nañu fi fii jógee xam li xew coow li lépp ñu ci bindu teen bi rek a ko xamuñu lu xew tey wax rek waaye ñi xam li xew moom xam te mu sëñ Tuubaa dañ ko niroole kenn te ñun foofa la ñu bëgg a nekk fa lañu bëgg a faatoo sëñ bi rek la ko woykat ba waxoon ni alhamdulilahi ndeem doon naa murit bu dëggal luy dal ku ànd ak sëriñ Touba ëllëg na ma dal képp ku gis ki ma gis ba noppi seeti leneen demal ma dem ba ma fii fii rekk a dal sama xel ak dund mooma ci doy suul dëddu moo ci doy bisu waññante ba Touba rekk a dal sama xel ma ne sañ na ko loolu la nekk noonu ah sëñ Mbay Jaxate wax ni sëriñ ba sëriñ ba jar jug ni mes sëriñ ba jar jug ni mes jug jug dugg àll di wéy sëriñ ba jar xëy ni mes jub dugg àll di wéy di laaj koy wër ba am téeméeri at mi ngi nii njariñ la jar laxasuy rafleeka xiif ak a mar ngir bëgg koo dab ba fee ba faf dee jot la it ngi nii noo boole nag biib sëriñ ak lii njariñ ci lu biir te genn réeru ci ay mbokkam lu mag a ngi nii kenn am kenn amu ko sëñ ko waxoon mag la waxoon naa la léegi sëñ Fallu moo àggaleel sëñ Tuubaa jumaa ji yékkati soroor bi gën a kawe te ku xam ku ma koy tudde ma neexal la waay kon ay wax mu ni waxuma waxuma ñoom ñëpp yow nañ ko waaye sama baay Cheikh Ibra laa ko tudde kuy duggati mu seere la kuy génn mu seere la làmpa goog ci kaw Serigne Alioune Fall Mbawoor moo jur sëñ Cheikh Fall Mbawoor 1978 la génnaat moo yëkkati junneem ni 63 jii ko sëñ lu tuddee sama baay maa koy ngénte ajjuma ju ñëwati ma ngénte koog junni ba keroog may dem Barzak def na ko fukki at ak juróom door a génn àdduna muy jumaa ji du dëkk leneen la ca topp mooy yéen ñëpp xam ngeen ni sëñ Touba daa nësaroon dem Màkka wax na ko boroom daaru maam Carlu wax na ko sëñ Massamba Diop Saam wax na ko sëñ Mbàkke Bousso te noonu na sëñ Mbàkke so bu ñu àndee dem fa dañ fay réeroo waaye di ma fekk maqaama Ibrahima da nga may fekk ma toog boobaa dinaa dinaa yor xasida xat saaba xalbiya di ko jàng waaye dinañ fa réeroo sëñ bi wax ko ko ca déwén sa sëñ Tuubaa génn àdduna sëñ Mbàkke bu sa amuk jaaxle ndax musuma wax lu ma gisul at ma ca topp ñu waaj maam Cheikh Anta jënd billet yëpp borom dërëm ak ngërëm borom daaru salaam moo ko jënd 40 billets première classe Cheikh Anta tedd lool 1 mètre 95 njoolaayam bu tedd ba rafet lool lu ne moo ci ëpp barke lu ne moo ko njëkk am lu ne moo ko njëkk a dégg ci yoon ñu waaj ànd ak sëñ Modou Ndiaye Diop sëñ Mayoro Fall sëriñ Tàkko Mbàkke sëñ Mawlaaye Bousso sëñ Mbàkke Bousso sëñ Fàllu sëñ Ibrahima Dia ñoom ñëpp ànd dem aji màkka réeroo bi amaat sëñ Mbàkke Bousso ni xelam ni yar ci li ko sëñ Tuubaa waxoon mu jubali maqaam Ibrahima fekk sëñ Fàllu toog téye xasida gi mu ko waxoon di ko jàng fataba xalbi yàlla ma daawu sallamani min al hidawa bi ati zanbi akramani wajjahtu wajhi lahu asran lahu abadan iyanhu min yadi seytaani harajani wajjahtu wajhi li rabbin la sharika lahu ala simati fi lidiyani bila sharika وجهت وجهي لرب لا ابتداء له ما اقتدائي بسلوار والفتن وجهت وجهي لرب لا انتهاء له مع انصرافي على شعر فلي وجهت وجهي لرب جل اول دل ما تخافني على شيء لم تكني وجهت وجهي لرب جل الغرض المازر في لو بالجسم ولا تني بخدمة لم يبتلى جالي بما نطا ودافع ما نقفى من المعالي بركة رحمة الله kon mu ngi noonu sëñ Fallou def lool àggaleel sëñ Tuubaa mébétam àggaleel ko jumaam wooteel ko bisu màggalam jariñ na képp ku mu bokkal jamono toog ni maay sëriñ Tuubaa ku ma gis-gis sëriñ Tuubaa ku ma noppee gis-gis doomi sañ Tuubaa weeram a ngi nii ñun dañuy waxtaane sëriñ bi ñun xalifaam sëñ abool baraka le 8 bi passé janvier la ci la ma woolu moo ma wool boppam dama kaay waxtaan ma ci sëñ Fallou fekk ma fii Touba fédération yëpp may ziar sa waxtaan ma doy xalifa yi sëriñ Touba yi ñoom ñoo loolu lañu bëgg dañuy waxtaane sëñ bi sëriñ sooy bu sama sëriñ da daan toog di waxtaane sëriñ bi ci daara ji ba ñëpp di daanu dañuy dolli ko ci waxtaane sëñ Touba sëñ bee ni fu mbooloo dajee di ma waxtaane yàlla tiimale fa waamewu xéewal di leen ko taw ba keroog ñuy noppi fu mbooloo daje di ma ñaanal di ma waxtaane di tudd sama mbaax yàlla tiimare leen waa mi xéwal di leen ko taw ba keroog ñuy àggal Cheikh Issa mu ni Mbàkke mu ni ko mbaa ñu jëw ndongo yi waxal ma fere yi bu ñu jëw mukk Cheikh Issa ni ko sañuñu ko Mbàkke nu ngeen def du ngeen jëw Cheikh Issa mu ni sax ci di waxtaane rek sëñ Tuubaa ni ko ku may waxtaane du jëw du jëw du jëw te ku nekkul ci li nekk ci leneen kon nañuy waxtaane mbaaxu sëriñ ci la lépp nekk dani woon Cerno Birahim mu ni ko Mbàkke mu ni ko bu ñu tuddee rasulullahi lu ngeen ciy teg maam Cerno ni sallallahu alayhi wa sallam lañ ciy teg sëñ bi ni ko hëkësa Cerno man nag bu ñu ma tuddee jël loxo teg ci dënnam bu tedd maam Cerno ni ko xanaa nga wax ñu ko rek bu ñu la tuddatee ñu xam luñ ciy teg sëñ Tuubaa ni ko fu ngeen mën a tey nekk sama tur jib na ngeen ni amul moroom Cerno bu ngeen saxee ci saa su ngeen déggee sama tur ne amul moroom ku ci jaaxle àdduna ak àllaaxira woo ma fajal ko ko ba mu xam ne aw ma moroom sëñ bi sunu lépp te ab te gis nañ ci lépp nag lépp taw féex gis nañ ko ci sëñ Touba wéetal ko wéetal la ñu nekk xam nañu bu baax yàlla xam ni koy jaamoo xam ni mooy sunu borom nu ngi julli waxtu wi juróom nu ngi def lépp li war ci sunu islaam dañ nañ ci réer yenent bi gën ci mindee fi sëñ Tuubaay sunu cër moom la ñu gëm di ko liggéeyal dañ koy waxtaane ñun foofa rek la ñu nekk sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér nu ngi santaat waa pàkk bi bu baax di leen ñaanal ngeen gën koo jekk at mu jot ngeen def ko te lépp ànd ngërëmu sëriñ yàlla dolli leen tëpp leen xéewal milliardaires yu bari juddoo ci seen jataay bii ndax jamonoy xaalis ci lañu ñu waaw loolu ngay wax naa ko <laughs> nee na Iblis bi bi ko Seex Rafal dabee da koo dab nangu li ko joxoon lépp delloo Sëñ Tuuba waaw loolu moo loolu moo loolu moo loolu moo indi jëlli gi waaw maanaam bu Cheikh Rafal gaawul woon rek xaw ma fu nu jëm waaw waaye suñ Tuubaa ne Ibra Faal la gën a gaaw far na ba daf nangu na li ma ko joxoon lépp delloo na ma ko teg na ko sama loxo kon kay ñëpp a ameel seex Cheikh Rafal waaw man Cheikh Rafal sama ndabir man waaw man ñëpp xam nañ ko ci man ñi jaxasoo man Cheikh Rafal rek lay dund waaw nag dañ naa ci réer dañ naan parfois arabisant dëgg man arabisant dëgg la waaye dama bëgg Cheikh Rafal arabisant mooy quelqu'un qui comprend la langue arabe rek loo bind ci jox ma ko mën naa koo firi jàngale ko loolooy arabe rek waaw léegi nag arabisant day tax dox suñu diggante seex yi te seex rafaal wane bu rafet loo mën a jàng ci alxuraan mu war la fi mu ko jëfee moom njàngum kese te jëfoo doyul loo jàng rek mu war la fi mu ko jëfalee sëñ Tuuba loo jàng kenn du moom kenn séenu ko ndax moom du neenal dara lu jëm ci sëñ Tuuba du ko neenal seex rafaal ba am ku ko mës a romb di yóbbul sëñ Tuubaa kaamilu alxuraan ñu ne ah ndongali foo jëm ji ko baax ki mu ne ko waaw mu ne ko kaay sama dara dugg ci loo koy yóbbul alxuraan kaay ma def ci sama dara mu demaale bi ndongali ñëwee maam Cheikh Rafal ubbi kaamil bi defaale ci juróomi dërëmu ngul dugal ko ci paasi kaamil bi ca jàll ne ko boo ko yóttee sëñ Tuubaa sama dara tàbbiwaale bi ndongali ñëwee ba jox sëñ Tuubaa kaamil bi sëñ bi ni nikk kaamil bi taf ko ci dënnam mu ne ko gisee nañu kay mu ne ko cay Ibra Fall xéewal dara lu jëm si ci ma Cheikh Rafa lay bi de ah am na bis am na bis maam Cheikh Rafa jënd oto oto oto yi ngeen di gis mu jënd ci boo xam ne fukki junneeg ñaar la ko jëndee booba 60 000 la oto yi jar yu mag waaw mu jënd ci benn oto fukki junneeg ñaar la ko jënd yónni ko ndaw ni ko boo demee joxal ma ko ko tedd ci Sëñ Tuubaa ndaw li indi oto bi jox ko sëñ bi sëñ bi ni cee Ibra Faal daal ndaw li demal jox ko sëñ Moodu Mustafaa sama ma ndaw li yóbbul sëñ Moodu Mustafaa oto bi ni ko sëñ bee la ko jox maam Cheikh Rafa la ko fàkk woon fukki junneeg ñaar jox ko ko waaye sëñ bi nee nañ la ko jox sëñ Moodu Mustafaa wàññi fukki junneeg ñaar ni ko loolu la jaroon mu ne ko waaw mu ne ko damaa bëgg nga jël oto bi demaat joxal ma ko sëñ Tuubaa ndax man sañu ma dara jóge ci di jël si ci man sëñ Tuubaa waru maa jox maa ko war a jox te mënuma koo jëfe loolu moo tax ma koy tuubalee njëgu oto bi ci delloowaat ko oto bi daal fukki junneeg ñaar boole kook oto ba joxaat ko sëñ Tuuba ba mu ñëwee sëñ Tuuba ni ndaw li waaye sëñ Modou Moustapha mi yéemu la ndaw li ni koy yéemu ma ngir yow Mbàkke yéemu ma ngir yow mu ni ko ah xam naa li mu defee de yéeme na lool ndax lu mu defoon lu dul nii mu doxaleeg man su ngeen ma noppee gis lu ma liggéey Ibra rafal dina ko nangoo ko waa Cheikh Rafal dafa garaaw de maam Cheikh Rafal du yii ñu lay wax gis-gisam la kenn amul daani bis bi mu gënee metti bis bi mu gënee metti ba ku ngeen ne yawa mun leen du man su boobaa neen ma yawa faal man leen man a daa jënd de wii teyit am na lu mu waxoon ñu ngi koy dund fim ne dañu woon ba àdduna yi tukki fu sëñ Bamba samp mbër ma samp mbër ci wet te liggéey sëñ Bamba may lool daal ni doom mbaa jàpp leen ni samp mbër ci wetu sëñ Touba day firi làngandoog moom déedéet ba àddunay tukki maay nekk jaamam mu nekk sama sang duma làngandoog sëñ Touba. ati ay sëriñ Touba Cheikh Ibra ñëw leen béggal ko ci Cheikh Ibra Fall ñëw leen béggal ko Cheikh Ibra rekk fi nekk du kenn du moom.